souffre ici mu wax. salaamaaleykum. El Hadj dañu liggéey ba pare dañu liggéey ba pare. dem nañu si juge bi fi ñu doon dégloo ngañ ngañ Demba Touré bi ñu ko dégloo ba ñu ñëwee war nañu juge bi. ngañ Demba Touré moom juge bi si boppam amul compétence pour mettre ko sous mandat. parce que code de procédure pénale article 663 bis dafa wax ni bu dee en matière de délit lañ la poursuivre. moom juge bi amul sañ-sañ pour arrêté nga jël chambre d'accusation moo am sañ-sañ génneel ko loolu moom juge bi mu taxaw mu ni deet kooku dañ ko wax waaye su fekkee greffier bi si liggéeyam la yem loolu si liggéeyam la ko tefee si ne yi appliqué article 663 te article 663 waxul loolu affaire crime la wax ngañ dem da ngeen bàmba si lu mu leen wax léegi charge yi nga ko teg teguñu ko Ousmane Sonko teguñu ko Bassirou Diomaye Faye mosuñu gis charge yu mel nii lépp loo xalaat lu nekk si ko de procédure pratiquement teg nañ ko waaw mais nag li si li si li raw mooy su amee ay incident c'est parce que également comme je dis juge bi moo matal moo matul bu matoon du am incident mata dem moo tax parce que nit booy def sa liggéey da koy def si li ko droit tërale amoo def sa liggéey droit def sa liggéey parce que da nga am benn inculpé bu nekk ko nga foog ne yow yaa gën nekk Sénégal ba ngay saaga fii kenn gënul kenn tey kenn gënul kenn bàyyi koo fi saaga mu delloo mais kenn moo saaga kenn du ñu dugg si loolu mais dama leen wax yéen a wax loolu rek yéen a wax loolu am na ay incidents moo leen incidents yi foofu leen mais pare nañu si incidents yi réglé nañu koo réglé itam ku nekk xam nga léegi sa bopp foo taxaw donc tey loolu mooy problème bi problème bi mooy nga dembatul deful dara lu dul nekk partisan nekk si benn parti ñu gisul parti def na ay poste loolu lañ ko dugg problème politique nag si tribune politique nañ koy réglé si meeting nañ koy réglé ak si ay télé euh, euh, kii de télé mais kenn du ko amul benn moyen pour régler des problèmes politiques sama adversaire politique dama def lii tëj ko boo ko boo ko defee mën nga def li nga li la neex rappelé nañu yooyu yëpp juge bi malheureusement malgré ça li ñuy gën a heurté ñun mooy juge bi 45 minutes avant muy jël décision am na benn journal bu publié ni juge bi jël na décision ba placé na dem ba Touré a détention donc journal boobu xam na ñoom lu ñu xamul xam na li nga xam ni ñoom tëral nañ ko avant C'est ça qui nous a fait mal. Et c'est ça qui a fait le plus mal aux greffiers qui sont là et à Ngagne Demba avant même ñuy décider am na benn journal bu ko bi placé na Ngagne Demba Touré te moom moment boobu juge bi mi ngi doon motivé ordonnance am pour wax lii ak lii laa décidé donc décidé gul àggagul si décision lii ngeen soulevé lii laa si toll wax ngeen lii wax naa lii lii laa jàpp lii laa jàpp lii laa jàpp foofu la tolloon. luy mooy xool juge bi placé na ngañ Demba Touré parce que parquet moo ko déposé moo ko demandé ñun réquisition parquet bu ñu gis amul fu fenn parquet demandé ñu placé ko sous mandat amul fenn fu ko placé fu ko placé demee donc juge bi aussi bu ñëwee bëgg appliquer article 169 ni c'est dûment motivé parquet sax ko demandé wax ma di ko motivé donc yooyu ay violation la ñun ñëpp taxaw nañu wax ko ni ko justice il faut mu jël ay responsabilités tey ñun dañuy wax greffier si ñu yoon wax moom mooy bunt bi mooy bunt juste mooy bunt booy duggee mooy bit booy génne loolu lay greffier ñun ñëpp nous sommes d'égale dignité muy avocat muy magistrat muy greffier te ñun ñoo bokk li ñuy li ñuy passé ñu ngi ko passé ak suñu famille greffier juste boobu nga gis am na greffier bu nekk si bureau bu ñëwee huit heures ba peut-être six heures ñoom ñaar ñooy nekk te kooku bu demee si këram doolu du ko passé njabootam donc il faut qu'on se respecte respect boobu cest à bu fekkee yoon daf leen may aax ak yelef dañ ko war respecté fekkoon yoon dafa wax mën na ko placé kon tey greffier doy mais yoon moo wax chambre d'accusation am droit place que bu dee crime la moom crime ay crime la visé visé wul ay délit ay crime la waaw moo tax ñu ni ko yow juge amoo sax droit di ko jàpp amoo droit tey di ko mettre sous donc loolu lañu sulay moom mu répondre mu ni non non bi fekkee li mu def daf ko def dans le bu dee crime bu dee délit moom su liggéeyam lu mu def si liggéeyam kenn mënu ko si poursuivre bu dee délit mais bu dee crime crime mooy acte terroriste yi ñuy wax crime mooy euh, offense au chef de l'État yooyu yëpp ay crime la wax ay acte terroriste yooyu yëpp wax na ko donc loolu yëpp amul 663 bis du code de procédure pénale dafa leer naññ naññ si côté boobu donc loolu nag moo ñu metti tey ba ñu taxaw fii ñu tamit wax war nañ ko suñu métti war nañ wax daas nañ wax nañ fu ñu am greffier yi aussi c' est tout normal ñu agir de la parce que mënuñu nekk ñoom di rey seen bopp si justice di def ay heures yi nga du leen ko fay lépp lu leen teg ñu nangu ko ndax Sénégal avancé mais bu fekkee lii dafa am ñoom du si seen bopp aussi dafa mel dañ leen beddi c' est tout à donc loolu mooy tey suñu taxawaay mooy taxawaay nga merci Youssoufa Kaba non li ñu dese mooy kon ne xeex ko bàyyi waaw ah, man la maître président amical greffier du Sénégal li xew tey mooy dañ Demba Touré c'est am statut bi am qualité bi juge bi ñëw na placé ko sous mandat de dépôt loolu andi njaqare ak kersa waaye aussi ak gàcce bu rëy ndaxte raison bu njëkk bi mooy ne ngañ greffier la statut la le code de procédure pénale dafa prévoir ay privilèges de juridiction loolu l'article 666 bis 663 bis du code de du code du code de procédure pénale moo ko consacré deuxièmement le parquet ñu xam ne li fi xew requéru mandat de dépôt kon la moo tax juge bi mun ko classe su mandat de dépôt loolu mooy firndeel coxor ji nekk ci juge bi Mamadou Seck dafa soxor il faut ñu wax ko donc c'est pas la première fois yéen ñëpp xam ngeen presse bi yëpp xam nañu Mamadou Seck yi fi nekkee ñëpp xam nañu bu demee bay lancer un mandat d'arrêt international di si wax ay faits yu grave bay saaga nit ki daanaka loolu juge amul cër boobu dafa war a yem objectivement ci liggéeyam selon les faits et la loi qui a été loolu nag du nekk sans conséquence conséquence bu njëkk bi mooy xool nañ tey war ma famille judiciaire waaye aussi tey famille judiciaire li ñu boole woon yëpp xotti nañ ko loolu nag dañuy jël suñuy motuwaay ñun greffier dañuy jël suñu motuwaay parce que boo nekkee ay nit nag bëgguñ la bëgguñ laa gis da xam sa bopp fii ku ne da nga war a xam sa bopp fonk sa bopp waaye aussi fonk sa morom gëm borom bi loolu nag moo tax ñuy lancé appel ñu amicale des greffiers a tous les activités syndicales qui ont cette habilité nga xam ne ñoom lañ may cër ñu déclenché la paralysie totale fépp fu tribunal nekk Sénégal dootul dox ba bañ a libéré totalement Ngagne Demba mu dellu si suñu loxo incha allah merci. En tout cas, on va se tout suite avec les trois, euh, avec, les deux parties syndicales la décision vous l'aurez, Inch'Allah. waaw ba pare nekk euh, chargé de communication de l'Union nationale des travailleurs de la tey nag bis la boo xam ne bis bu ñuul la boo xam ne bu ndroog suñuy rob parce que tey benn pan important de la justice muy grève parce que grève trilogie la dafa am parquet dafa am euh, justice trilogie la dafa am parquet dafa am siège dafa am le greffe kenn ku ci nekk di jouer un rôle important sans l'un des piliers mënuñu wax justice tey nag benn pilier boobu noonu moom lañ toroxal li ñu ko toroxalee mooy dañu jël benn ci ay doomam boo xam ne deful dara li mu def moom mooy dafa de politique te politique la constitution moom moo ko autorisé ku mu mënti doon ni mu ko autorisé les syndicalistes notamment Euh, ñu prévoir ne képp koo xam ne bëgg nga def politique mën nga ko def librement sans être inquiété tey nag Mamadou Seck xamu ban costume la sol jël passé outre même ses pouvoirs parce que quand même tey am na infraction yu mu visé moom dafa passé outre ces infractions là li ñuy xaar ci mandat d'arrêt pour bu juge d'instruction man mi nga xam ne def naa 13 ans de carrière def naa 5 ans dans un cabinet d'instruction gis un mandat d'arrêt aussi désinformé que mandat d'arrêt boo xam ne da ngay décréer nit naan waaw notoriété bi mu am c'est que mu nga xam ne mën nañu ko toppee benn wuute na mu caractérisé ko tey Kéba la di xaar ci moom parce que la justice est rendu au nom du peuple sénégalais tey Mamadou Seck a trahi le peuple sénégalais de par ses actes c'est une honte ñun nag Mbéjum Kanam moo ko borom moo ko sañal boppam li am nii tey dafa ñu wan ne moom du suñu mbokk parce que ñun ku ñu xam kenn xamuñu ci coow le greffier bañ nañ ko moom mooy le seul acteur de la justice bi bokk ci procès koo xam ne dafay noppi coow bokk suñu mbir boo gisee ñun ñu def la loolu c'est parce que dañu am benn genre loyauté envers la justice dañu am benn loyauté envers le peuple sénégalais dañu am loyauté envers l'état du Sénégal moo tax tey li ñu xam ci justice bu ñu ko waxoon tey dëkk bi toj mais duñu dégg ñu ci annoncé parce que nous sommes sous serment mais tey loolu lépp dafay dakk dinañu war ne ñii tey comme que ñu ay noonu la ñuy jàppee ñun tamit dañu jël suñuy matukaay d'abord laal li ñuy jëkk a lancé moom mooy que à partir d'aujourd'hui képp koo xam ne yaa ngi ci greffe greffe nag pour greffier kese dafa am interprète judiciaire dafa am chauffeur dafa am archiviste dafa am euh, euh, secrétaire administratif ñoom ñëpp dañu leen wax à partir de deux jours ñu tëj seen i bureau bu dee justice ñun bokkuñu ci tey ñun dañ ca xam dara bu ñu mënee rendre justice à sans nous dañ ko def parce que ñun xam nañ ce que nous pesons tey bu ñu ci nekkul woon tey décision de justice du génn on se tue dans les bureaux mais ñi mérité wuñ ko tey ji on prend ces résolutions jusqu'à nouvel ordre que ne